حمدي وسكري لمن كلي بسهر لو ريدا دون سخط السلام عليكم ورحمة الله ginnaaw bu ñu leen nuyoo nuyu sëriñ Xaadim ak mbokk mbooloom ñi nga xam ne ñoo seq liggéey bi te koo ci tudd rek ngay mel ne mën ngaa tudd ñëpp koo ci bàyyi it bàyyi nga ñëpp jërëjëf suñ ka ci wax ji ci ndaxte barab bi moom lu ngeen ci wax rek du ñàkk ngeen bàyyi loo xam ne xëy mën ngeen ko wax wala sax du egsi ci yéen mm-hmm. te firiwul ne lu ngeen xamul la waaye day xam ne na loo xam ne ña ko la ko lal moo leen koy dencal ba di ko di ko di ko joxe par ndànk mm-hmm. euh, fii moom damay wax ne mooy mooy mooy mooy bopp liggéey bi te loolu mooy li am sëñ santaane ñëwal fi bopp man fi laa njëkk ñëw sax dañ jaaree fële. Mhm. fii laa njëkk ñëw ndax man dama daan def buy ñëw. bu ñu ko waxul du def mais bu ñëwee tamit suñ fekkee bés bi defe naa bu ñu masaan def le huit ñëw damay ñëw la la sept bi bu ñu ci bés bi ci dem ci mairie ba xaw suba saa bu ñëwee fi man damay dem. Mhm. waaye keroog ba fi ñëwee fekk sëñ Abdourahman mu yéem ñu lool sëñ bi yéemu ci lool li ngay wax lu wax ten la wax ci wax yu yéeme ngeen ngeen ngeen ne ci liggéey bi comme fii mooy baaso mooy ndax li ko liggéey bi li ko tax a jóg mooy lii ñu gis mooy damay wax ne kërug sëñ Tuubaa mooy kër gu ñuy defaroo maa ngi firi sax loo xam ne nee nañ addis gànt bi xam ne ne ñu lu mel ne addis man su koy nettali lu mu ci law lawente damay kenn rek ma ne moo wax man pour dégager sama responsabilité ay yëf waaye lépp luñ la yonent bi sallallahu moo ko wax du du du éventé day maanaam du sos day day génne ca waxi yàlla loo xam ne noonu loo ko mën a leerale naan e, e, man bana lillahi baytan bana allahu lahu baytan fil janna loolu moo xam addis bu wér la wala bu wérul waaye yan na maanaa waaye li ko leen ci jafe mooy niñ koy firee niñ koy firee mooy benn ndaw ko naa rek bu am xaalis boo xam ne nu ne daal di ne yàlla nee na ku tabax la jàkk ba am néeg mu tabax la ko ajjana daal di dem wutu jàkkam ku a a amee wala fu as kii nekk mu def ko fa te yàlla du kenn du ko sërxal néegu yàlla mooy fi ñuy defaree nitug yàlla du fu ñuy tëdd du fu ñuy nelawee du fu ñuy noppaloo du kon loolu lay loolu la loolu la loolu la loolu kon dafa mel ne loolu fii da ko muy moo tax sëñ bi doomi sëñ Tuubaa yi ak ñi nga xam ne ñooy nit ñu baax ñi te itam liñ ci gën a yéeme li ngeen waxaat léegi ndax wax nga ma sànq bi ma demee fii ci kër barabul islam boobu moom itam sax si liasman waa këram waa def ko fa dañ ma dañ maa wax ne wax seen taxawaay ñun tam ñu wax leen li mu tax a jóg ba bi mu ñëwee fii wax nga ma ne bi ngeen am di defar fii tamit seen barab ngeen dem mel ne kon yëf yi kenn ku ci nekk la ngay wax la tax nga di ko wax du lu neex kooko du loolu neex yow mais lu yàlla def la te yàlla lu muy def lu nekk day fekk ña ko yeyoo moom booba anam asiyo jawlu salati ay mission bu ko daan def sax du tànn du nem ko fu ne rek lay jëli nit ku jig waaxu egsi mu jox la ne la demal jël mission bi dafa am ñu ngi koy sant ñu ngi koy sant da leen ko da leen di waajal ah, waajal boobu nag ah, day xóot ndax lépp lay waaj ah, lépp lay waajal ña fay nekk ña koy taxaw ña koy saytu ak ñay ñay nekk laytaay lu ne lu ne lu ne la koy da koy da koy moo tax ma dana ci am lu bari loo xam ne du ngeen ko sax seetlu da ngeen dem ba xel may ko rek rek xam ne lii mbirum mbirum lu yéeme la ni ngay waxee kéemaan gi ci njàng mi tamit noonu la ndax jàng boo xam ne sama ay bés bu nekk nga nga nga def ci muy benn bés nga gis résultat yi ngeen fi ngeen di gis nga gis ci barab yu bari ñoo xam ne day jàng at nit wala ñaari at di ko te duñ fa amee loo xam ne sax mën na leen a jëriñ xam nga ne sëñ Tuubaa ku ne xam-xam na ku ne xam na ne ku xam gis ni muy bindee ak muy jàngee ak ni muy waxee xam ne xam-xam boobu du lu nit lu jàng wax na ko sax luñ lay yonent bi la moo moo moo moom ca la alxuraan ca la te jàngul woon du woon jàng bind li ko yàlla di wax ci jibril la mu di ko wax yu wax yu lan la ko doon wax lan la doon waxe ak mom japp nañ ne xeyna li li lom yonent bi namp la ko ndax mom la waxe moy alquran alquran yonent bi alquran la arab la waaj arab ta taxul su dañu sélectionné langue bi langue bi rek ay dëkk yu bari ñoo daan wax ay ay yeneen xeetu waxe moo alquran bari ay jangin mel na ñu ñu dëkk salum ñu dëkk ndar ñu dëkk walu ñu dëkk kajoor ku nekk am na wax waaye wax jëpp ku ci nekk mën ngaa waxante ak sama mais fi gënoon a nekk centre nag mooy màggal te xoolee si nekk fa moo tax làkk xoolee si loolu la ñuy wax ne dañu léeg loolu la ñuy jàpp ne foofu la ndax moo boole làkk yëpp ndax ñëpp dañ daan ñëw ku ñëw daje seeni marché ku ne di waxante ba wax seeni wax sax far mujj mujj mujj law ba ñu jóge woon Saalum bu ñëwee Bawal bu ñëwee nangam li nekk Kajoor ñu am na wolof am na boo demee séeréer ñu bari Sénégal ñu bari ay wolof la ñuy wax te nampuñu ko. waaye daje gi ñu daan daje ci barab yoo xam ne wolof yaa fa ëpp di ci te foofu la daje yooyu daan muy marché yi muy dajaloo fa la tamit Kaaba fala fa la nekkoon def ko fa te amoon nañ diine ñoom itam xëy na buñ gëmul yëg buñ gëm buñ doon am ñu bokkale waaye Ibrahima ko fa tabaxoon moom moo tabax kon foofu occasion la woon pour ñëpp di fa daje bata tax boobu ñu en langage kii boobu lahja boobu ñu di ko di ko wax alxuraan yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa di wax boobu làkk moo tax alxuraan bari na ay wax yoo xam ne sax léeg-léeg du doon arab ay baat ndax bu doon lépp yàlla da ko sol noonu da ko ko wax yow jibril la xam la muy waxanteeg moom waaye yonte moom mënu ko bañ a wax ci li xam tax yàlla moo ne lu lu ma arsalnaa min rasul illaa litubayyina illaa bi lisaani xawmi ci ci loolu la kon loolu lépp li muy wane rek mooy mbir mu dafa am lu ko lu lal moo tax bu bu ku ne xam na ne li li ko lal moo moo moo yaatal moo moo hmm. mooy luy defar biñ ma bi nga xamee ne léegi ñi nga wax ne kër yi yi nga xam ne mooy kër lislaam yi sëñ yi nga xam ne mooy kër li ñuy wax kër sëñ Tuubaa te bu ñu ko waxee sëñ Tuubaa boo ko ci lislaam moom du tubag foofu sax hmm. kon pour matale ko te doxit nu ngeen di doxit mu mel noonu ndax fuñ ci dem biñ demee tey ñeneen ñeent dañu leen dem jaar ca ba te wax ja di wax ju rafet kon yëf yi du du lu ñuy lijjanti yàlla moo koy defal boppam waaye day nag fi mu koy def ñooñu ñu xam ko ñooñu di mu am waajal leen ba la muy def nekk ci seen biir kenn ku ci nekk sa xol la ci ak ñi ko jiitu si xaalis ñoom ñu dëgg la ñoom ci diine ci yëf yi lañ bokk waaye yëf yi lañ bokk ci mooy lan ndax moo juddu ci ndax Maam Mor Mbàkke la sant. loolu beneen affaire la du loolu dama koy waxaale ci sama bi may indi tudd université Cheikh Ahmadou tur yi bu dee état bu fekkee da ngaa tudd tur bañ xas ko reconnaître dañ koy protéger maanaam tur boobu kenn amatul sañ-sañ a tudde ko état di ko reconnaître maanaam nekk ci ay këyit bi maa xamee ne mi ñu ngi def université bi. foofu Azhar la ko sëñ Mourtala tudde woon muy institut bi maanaam njàng ma ndox mi ci digg doom ba foofu ba a bac biñ ne dañuy def université ma ne léegi ma ne léegi bu may ko université nag sëñ bi danañu rek waaye wax wet li xalaat ak Azhar Azhar dafa nekk barab boo xam ne bu mag bi ci Égypte la ko sos mooy mbiri daanaka mbir politique la woon wahabiste yi bëgg suuxal sunna bëgg suuxal tasawuf kon sëñ bi moom lu tax moom te am na lu ëpp junni at moom la tuddewoon al azhar ñun nag ma ne léegi bi ñu bi sëñ bi demee ñuy kari université ndax bëgg a noppal xale yi ñu gën a yokk seen jàng ba noppi bëgg gën a des ak seen bopp jàng lu gën a bari lañ daan jàng ca biti ba noppi des nag ak ñoom ma ne nag ñun mënuñu ko tuddee ay azhar ndaxte azhar dëgg la am na solo mais nag nañ ko tuddee Cheikh Amadou Bamba ndax moo gën a mérite te ci man bi àdduna bi nga xam ne jàng mu xat ak dafa gën a wóor mhm. bi ma ko waxee biñ ko état nangoo reconnaître ko ci jamono boobu deux mille ñu ne ma nag léegi ñoom mënatuñ ko tuddee ndax dafa am ñoo xam ne ay jàngkat yi sax tubaab lañu dañoo bëggoon a ubbi université tuddee nañ ko sëñ Tuubaa te sëñ Saliou moo leen ko autorisé woon ba autorisé ba ba loolu moom la état di mën a reconnaître kon mënuñu ko tuddee te loolu ah, mu nekk loo xam ne nga xam ne kon Mbàkke jaar ŋaar ŋaar jaar sëñ <laughs> yooyu si yàlla loolu sëñ Tuubaa nekkul ci yooyu ma ne ko ak ah, ginnaaw noonu la demee daal di ne kon ma wax ko enseignement supérieur man li nga man def daal mooy nga gis ñooñu muy ñu sant ay ay ay ay ay ay ay xanaa daanaka ci caddu gi lañ gën a jege sax ba noppi ay jàng ci tubaab lañu enseignement ne ma li nga man daal mooy nga wax jéem a wax ak ñoom ba xam ñu dem waxtaan ci waxtaan nañ ci ay weer ay millions laa ci fay parce que fekk ñoom ñu sori ci dugal ci seen njëf ma delloo leen lépp ñu soog a desistu ma soog ko yónnee enseignement loolu li ma ci bëgg a wax gi mhm. mooy nga xam ne yëf yi du ay falaa falaa sëñ Tuubaa li muy li muy li ko yàlla di may li muy bari bari bari ak li muy yaatu yaatu du ko pasar pasare lu ne da koy nga xam ne ci laa bi ci laa ko jëlee fay leen ñu soog maan nangu génn ci ma jël tur yi mais tax tur yi kenn amatul sañ-sañ tudde ko université Ahmadou Bamba ci Sénégal te état di ko nangu loolu mooy li am hmm. waaye liñ ci jëlee rek du wax gi nii waaye dañoo bëgg a wax ne lii ngeen di def ne du yéen la yéen dafa am mission buñ leen di def loolu nu nii yéen nag ñëw rek di di seetaan waa góor waa góor waa góor loolu lañ ci am ay yéene def waaw li ñu def léeg-léeg mooy waa góor nag nga ñëw di ko def rek kay liggéey ka bàyyi ka ñàkk di naq ka naal yow nga ne waa góor ba noppi ñu bëgg la caa dugal ba nga jàpp ne yaa nga ca loolu la ñuy wax dañ koy wala yaxsabuna llaziina yafrahuuna bimaa ataw wa yuhibbuuna an yuhmaduu bimaa lam yaf'aluu wala taxsibannahum bi mafazatin min al-'azaab loolu ba alxuraan dafa lijjanti lépp mbir nga ne ca defoo ca dara ñu ne la yawa ah, nga bëgg yàlla neen daf lay loolu moo tax ñun buñ ñëwee fokk ñu jox leen ne yéen a taxaw ba ñu taxaw nag tiim leen di wax te yéen waa góor waa góor ja dan sant nañ ci sax yàlla ndax ñëw lu bon bon taxaw ci tool ba <laughs> fekk ñay liggéey nga nga nga nga xër ca ba ne leen waaw leen góor ñu dugal la ca faat biir <laughs> loolu tamit loolu rek la de loolu mooy sunu sunu moo tax xale yi tamit xam ne njàng mi moom ku ne xam na ne baatil la secret la mm-hmm. loolu moom xam nañ ko yéen ñi ñu ko defit secret ngeen ndax tamit du du am am ndaw ku naa bu jóge fële rek am wala mbusoobe sax am na xam ne ñu ngi ci ay commerce xam naa <laughs> kon yëf yi du loolu moo tax na ñun tamit ñu di leen ci sant di ñaanal xale yi xale yi tamit ñu góorgóorlu ndax xëy na bu soobee yàlla danañu xool ak yéen buñ demee ba mu laaj ñu ni ma koy waxee fu nekk rek surtout nag yéen suñ xaadim ngeen di organiser jël ci ñu sot ñu ci jël ay benn benn ñu ñëw ndax sëñ abdourahman moo yore na daru alim ndax foofa la ñu jàngale lépp lu jëm ci diine ak lu ñu jëm ci civilisation bu dee faculté yi ci les yee mbay lañ fa jàng yee technologie yeneen yenn ci des yeneen yi ci des waaye ba mu yor ci daru alim xabir loolu léeg-léeg nag defe naa ñu mel ne organiser wu jël ci ay nit ñu ñun dal gaag yore ga bañ ñëwee ba foofu moom dañ ko mën bu ko defee ñu xam lan la ñu ñëw jo ndax ñii ñooy ba ñooy ñooy ñooy li ñuy wax pépinière maanaam euh, njëmbat li mm-hmm. mm. li nga xam ne euh, lii ngeen def nii du yàqu waaye li tax lii man fee am ak ñi yàlla di leen may ñu mën a egg ci niveau yi ñu egg ak temps bi ñu am mm-hmm. ak juddoo fii loolu yéen la yàlla bëgg wan le leen du yëf du du suuf ndax lu mu mën di doon addina dafa am yàlla dafa yàlla la moom hmm. du du yonente yeeg ñëpp dañu adduñu ay malaaka ña bëggoon yàlla wàccal leen sax di di ci sart lu bari yàlla den mosuma wàcce ba malaaka ci suuf ñuy dox ay malaaka laa leen di yónnee ci ñoom kon bu dee nit it nit ñi la kon lépp di ko waajal daf ci def ci daf ci daf ci baax kon nañ ci xalaat ñiy ay ay ay xale léeg-léeg ñu tànn ci juróom wala juróom nangam ab lim bu ndaw indi leen ñu xam gës wër ko defee ko ñaan jëlay jëlañ ko ñaan kon daal lii dafa mel ne fii daal mooy mooy bi mooy mooy mooy mooy mooy ñu tax jóg kon yéen ñi fi nekk yal na leen yàlla sàmm taxaw ci barke sëñ Tuubaa yi kenn ngi bokk ci kër yi di defee nii nañ bu leen kenn mën a dugal ci lu dul ngeen ànd ci lii di ko def mhm. ndax lii kat moo leen moo leen moo leen moo leen fi indi waaw surtout waaye ñooñu nekkuñu woon di ñeeroo ko ngaayoo ko kee daa am de ñii sama ñoom ñemewuñ lool sax ñemewuñ ne samay nit ñoom daawuñu ko waxee samay nit dugguñu ci yooyu léegi kay nga gis ku naan sama taalibe baag sama dugg boobu te loolu dafa garaaw responsabilité boobu dafa rëy nit ki nga xam ne yàlla la xool ci yow mhm. kooku sama ji day xaw a diis waaw boo ko xamee waaw moo tax yéen itam ngeen xam ne lii yéen ñëpp ko bokk dem nañ foofa léegi wax dëgg yàlla ñu dalal ñu rafet wax loolu dafa rafet dafa comme fii rek kon daal ñu ngi gërëm ñëpp di leen sant asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëñ Xaadim jërëjëf sëñ loori daan doona suux وقت عند سرسير حمدي وسكري لمن كل بيسير لوريدا دون سوء عند سرسير